buy dugg ci wàllu investissement daf koy gëstu ba xam retombées yi nga xam ne moom lay am partenaires yi bu ñu ñëwee aussi daf leen di xamal na leen moom dafa am ay priorité te priorité yi population bi la priorité yi sénégalais yi la priorité yi bëgg ñi ñi mën a accéder ak ay services de socio euh, sociaux de base yoo xam ne ëllëg du ñu am benn problème léegi nag mbokk yi dañoo am benn rakk bu tudd Fou Malade Malal Talla ambassadeur de la propreté dañ koy woo pour mu ñëw moom tamit def prestation malatala ambassadeur dégg nga maam bu propreté mi ngi nii dañ koy dugal mu ñëw def benn speech après son bi dugg mu bégal jataay bi merci ok merci ñu ngi leen di nuyu ci nekk ci sa tur ak sa sant di kontaan ci teew bi ñu teew fii tey te ki ko yombal di monsieur le ministre Ablaye Seydou Sow Ablaye Seydou Sow ñu ngi lay ja ñu ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay jaajëfal ci esprit démocrate bi nga am parce que waxtaane waxu set amul parti politique amul mouvement amul leneen waxu Sénégal la donc set ñëpp la concerné donc ma ci tàmbale di ci jaajëfal waa UCG ñi nga xamante ne ñoo nekk sur le terrain di liggéey di jaajëfal buuju maan yi bu baax a baax a baax a baax di wax ni nag ah wàllu set buñ koy wax ci réew dañ ciy boole ñëpp mënuñu ko def affaire u parti politique parce que mënul nekk yëfu APR mënul nekk yëfu PDS mënul nekk yëfu kenn yëfu ñëpp la war a nekk donc noonu la war a doxe ñu war ci jàppale jigéen ñi war ci jàppale góor ñi waaw noonu la war a demee parce que loolu moom moo war a doon liggéey bi ñun nag sunu taxawaay looloo ñu fi indi tey looloo ñu fi indi tey pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi parce que avec les volontaires verts au niveau de Guédiawaye liggéey boobu ñi ngi koy def bu baax a baax a baax bu ñu keneen woon tam dañuy ñëw wax li ñu war a wax dox ci li ñu war a dox liggéey bi dafa war a gën a inclusif war a gën a participatif war a gën a soutenir population yi war a jàppale waa Mbëbës ci liggéey ci liggéey bi bu baax a baax parce que les populations de Mbëbës effectivement ils sont là ils en donc merci beaucoup jaajëf